beneen bi en fait kon kon ma xanaa ma sóobuwaat rek. ci ma sóobuwaat rek beneen boo xamante ne par rapport ak album bi la. Mhm. Euh, dañu ko tàmmal mais dafa benn bërëb boo xamante ne xam naa ne Sénégal yëpp euh, président euh, ñu ngi la fay xaar te di la fa séntu te xam naa ne ma ngay jooy nag muy stade Demba Diop. mu nekk benn lieu mythique boo xamante ne. Mhm. Sénégalais yi. DK 24 la nam waaw yooyu yooyu bëri bëri naa ci morom bëri naa ci morom. c'est vrai que euh, Dakar gëj def. waaw waaw est-ce que est-ce que est-ce que mën nañu wax ne euh, ci 2018 bi incha allah wala euh, jimi jamono rek mën nañu am benn événement bu rëy digg Ndakaaru. waaw nañu xaar mu mu ubbi d'abord je pense que c'est toujours fermé. Mhm. après on verra. Mhm. Programme moo gën a métti fii. Mhm. c'est la demande. qui appelle la programmation lu ñu def Bercy ren. man décidé woon pour pour def ko de. Ah, hmm. c' une demande. Hmm, pétition euh, euh, voilà jéem moo dóor affaire bi. Hmm. deux cent personnes wax ak man ma déglu. <laughs> c'est la demande man duma dem fenn. té woowuñu ma fa. sonal sa bop la. da ngay bàyyi ba mu am demande. nga ñëw. ci on fait Bercy parce que y a une demande. tout à fait. waaye doo mën a 20 000 personnes, je les gilets, indi les. Mhm. Mhm, mhm. Donc s'il y a la demande, je réponds.